président Macky dafa jël décision ne suñ professeur turquie dañu war a dem alors que ñun dañu nekk pleine année scolaire demaguñu xamuñu ñuy ñëw ba xam ay professeur lañ ba xam dinañ mat pour yaawu selim neuf yaawu selim ci Sénégal ba pare tamit xamuñu ba xam di ñu tëj école bi en pleine année scolaire comme niñ ko defee ci yeneen dëkk donc ñu dañu dañoo dañoo jaaxle trop comme suñuy parent aussi professeur turquie dañu rattaché wu ak ñoom trop li ñu defal dafa bëri nit ñu baax lañ. pour li ñuy wax comme ay terrorisme ñun gisuñu ko donc ñun d' accord ñu pour suñu professeur turc yi part ñu dem ñu d' accord ci benn yoo bëgguñ ñu dem su fekkee dañuy dem nag kon dañuy ni ñu ñëpp yóbbaale ñu. école bu demee nii di def ay résultats nga ñëw xëy suba rek nga ni da nga koy tëj ñu ni denn waaye ñu ni noo tëjuñu ko bi parents yi commencé wax ñu ni tëjuñu ko wante. dañu bëgg a changer administration administration école bi xale yi kanam yooyu ñu miinoon gisatuñ leen c'est une famille c'est une famille ici dans ces établissements c'est une famille dañuy visiter écoles yi régulièrement di xool donc nañ ñu dimbali baa ñu fi nekk ñu àggale xale yi surtout que ñu ngi nekk période composition année scolaire bi fi mu toll nii véritablement ñu ngi leen di ñaan ñu bàyyi yëf yi mu sedd parce que kat parents yi fi mu nekk li seen doom yi wax ñu ngi koy déglu de bu baax te ils sont assez avertis li ñu leen mën a wax mooy bis bu acte officiel génnee parents yi dinañ ko attaquer devant devant la justice sénégalaise. e ya y a une pancarte là qui m'exprime nous croyons à la justice sénégalaise yaakaar nañ ni bu attaque buñ ko attaqué dinañ am dinañ am gain de cause. ay daw ay responsabilité amagul benn këyit bu ñu notifié quoi que soit déclaration yi ñëpp a ko jotandoo rajo la ñu nekk ak télévision. dégg ay déclaration mais bu fekkee li ñuy wax dëgg la si ñoom mais nañ joxe un papier ñu xam ne école bi day tëj wala école bi day toog administration mënul nekk administration sénégalis seulement c' une administration tout court qui regroupe à la fois de turcs et des sénégalais voilà. ci éducation mooy mooy programme mu paquet bi nga xam ne mooy moom la ñu teg ci biir njàngale mi tey nga ni qualité nga ci jiital ak équité mooy da ngay yemale ba pare bëgg ci mu am qualité. kuy woote loolu doo fekk établissement bu mel ni Yavuz Salim nga xam ne depuis ñaar fukki at mu ngi nekk école d'excellence maanaam bokk ci école yi gën a am euh, nu mu tudd euh, ñi ñi ñi gën a joxe résultat ci Sénégal nga yeewu ne danga koy tas parce que lii nag du lara lu dul jéem a tas école bi jaaxle naa nag man en tant que député ba ma fi ñëwee dégg ñu ni nguur gi ci ay wax rek la yem joxeegul benn kayit wax yooyu nag dafa mel ni nga fekk ay xale yu ndaw ñii di suñuy doom ñii di suñuy sët ngeen leen di perturber ci seen njàng comme nag génneegul benn kayit ñu ngi koy ñaan mu dellu ginnaaw te delloo yëf ya ca palaasam mu jox bàyyi yow Selim mu continuer liggéey bu rafet bi nga xam ne mu ngi koy def depuis vingt ans te kenn mosu leen nag jiiñ lu mu mënti doon la xew Turquie du suñu yoon du yoonu xale yi du yoonu parents d'élèves yi Sénégal état souverain la bu moom boppam boo xam ne waruta nangu ñu ñëw di ko dicter quoi que ce soit moo tax nag ñu taxaw fii tey di ñaan président de la république ne leen nañu dellu si ginnaaw comme benn acte génnagul su dikkee jóge France mu nekk Père Noël bi nga xam ne mooy indi xibaar bu neex bi indil ko xale yeewu selim yi xamal leen ne seen école dana continuer di jàngale na mu doon jàngale te la xew turki nag ñu teg ko fale seen diggante la suñu yoon nekku ci ndax ñi fi ñëw kat koppar lañuy wut si ñi nga xam ne dañoo am ay sanc fii ay AIBD ak feneen ñooña c'est des privés kon nag tey jii nag nañu sàmm li nga xam ne depuis vingt ans mu ngi fi te indil ñu ay résultats yu am solo ñu mën ci teg suñu bët en terme de résultat dans l'éducation mais aussi en terme de résultat au niveau du social kon nous appelons l'État à revenir ñu ngi leen di ñaan ñu dellu si ginnaaw te Macky Sall nag su dikkee na nekk per Noël u xale yi nga xam ne ñu ngir toog jaaxle ndax xamuñu seen établissement fu ñu ko jëmee loolu moo doon sama message